waaw euh, foofu itam euh, ci façon tànnit bi suñ boroom ñun dañoo dimbali euh, dajalanoog un homme extraordinaire muy kan un de qualité un nit koo xam ne nii li ko yàlla may ci xam-xam muy kan nit ñi sax muy kan maa ngi ñëw nit ñi xamuñu ko waaye mbaax gi li ko ci yàlla defal ci mbaax itam loolu itam kenn mënu ko xalaat. Mm-hmm. waaye yar bi ak teggi nii. Mm-hmm. li ko ci yàlla defal kenn xamu ko. Mm-hmm. ba tax des fois ñun on se trompe. ndax dañuy jàpp na ñun dañoo am affaire ak koo xam ne li ñuy def xamuñ ko. waaye yar bi teggi nii maslaa gi. dafa tax ba mu yàgg da da ngay def loo xam ne sax yow moo la ko gën a xam. ba pare yar bi ak niñ ko niñ ko façonné. tax. ba mu mu di la bàyyi ci biir. moo tax gis ñun. ñu ñu ñu war a def attention lay. ndax bi nga xam ne conseil municipal bi def nañ ko ba pare. Mhm. ko may tudd turam bi di bu bu màgg a wàgg ñu di ko wax Cheikh Mountakhal Bachir. daf ñoo dajale la fi yàgg te wér. Mhm. nee noo yéen day lu ngeen mas a def na ngeen xam ne. Mhm. lu ngeen mas a def na ngeen xam ne ab tàmbali la woon am njàng woon waaye yéen a ngi door a tàmbali. daal ci teg baat bu am solo boo xam ne man baat boobu moo ma xaw a. frustré moo ma xaw a tiital. na ngeen xam ne barab boobu ngeen nekk mën ngeen faa defaroo waaye mën ngeen faa yàqoo. kooku menace la. Hmm. Hmm. di nga de daf ñu dalal accueillir nu wax ne nu yéen kat da ngeen xam ne. Hmm. li ngeen doon def lépp am njàng la. waaye yéen a ngi door a commencé. waaye wëlbatiku nag ne la waaye nag dangeen xam ne bara boobu ngeen nekk yéen. mën ngeen faa yàqoo mën ngeen faa defaroo kooku menace la. kon nag ak à chacun de choisir ndax da nga fa war a defaroo da nga fa war a yàqoo. kooku la ñu sunu borom dajaleel. nga xam ne kon nun dama yaakaar ne am na ci loo xam ne ci nun la ndax nit su fekkee dañ la dénk dara mm-hmm. te liñ la dénk mënoo ko mm-hmm. yow yaa war liñ la dénk mm-hmm. nga ne ay li yoon mënuma ko te sama yàq ko danaa ci yàq lu baree bari ma delloo ko ah un conseil municipal war naa toog mu dee mu jékki-jékki na très sérieusement liñ ma fi tànne mënuma ko man damay delloo sama mandat waaye kenn du delloo dara